لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا bi nga xam ne kenn ci suñu ay donateur moom moo leen ko may muy ndaw soo xam ne wax dëgg yàlla moom ak waa këram Euh, duñ fi gaan ndax am na teen yu bëri bëri bëri yoo xam ne ñoom ñoo ko fi def te jubluwaay bi dara loolu rek jàppalante ak dëkk yi dëkk yi nga xam ne xëy na ñoom dañ fi mës a ñëw pour xool ci liñ fi def waaye am yaakaar que ne li ñuy def yàlla dina leen ko nangul ak am yaakaar que ne li ñuy def yàlla mi ngi leen koy comptabiliser loolu moo tax ñu saa su ne di financer ay teen defe naa ne ki bii moom moo def bi nekk euh, mbétid ñaar yëpp moom moo financé te xamu fi mosu fi ñëw. sant nañu yàlla bu baax a baax li nga xam ne boole nañu ak ñu baax. waaye ci mbiri toon bi nga xam ne mooy li fi ñëw tey di loo xam ne lu ñu fi soxla la ndax fi ñoom daal di dëkkuwaay boo xam ne ndox dafa xaw a manqué même temps fii yenn saa pour nga am wéeru koor gi léeg-léeg sax wax naa bu ñu wóoroon boo bay dogu ni ndox mi pour nga naan ko dañ koy seg segaat ko bàyyi ko dans moo ko mën a naan ndax ndox jafe fi en même temps wax ma loolu waaye ndox balaa ngay am ndox lu muy dem ci teen yi nga xam ne dañoo xaw a sori am na ñoo xam ne dañ fi doon jaay ndox waaye day chair sax ndax ndox manqué fi kon bu ñu demee dama dem boo am mbokk yoo xam ne dimbale nañu ci teen bu ñu ne woon alhamdulilah gën nañu wax ne alhamdulilah xanaa fii daal di dëkk boo xam ne rek bu bës setee rek ñu bëri tasaaro pour wuti li nga xam moom la ñu dundee waaye leer na ma ne ñi nga xam ne ñoo bokk ci teen bii buñ fi taxawoon tey leer na ma ne kon mbooloo bu ëpp ëpp lay doon waaye xam nga jamono rek yenn saa buñ fi bu ñu xëyee rek ku nekk bala nga am dara da nga am loo xam ne moom nga dugal ci sa poche mbaa li nga dépassé woo mm-hmm. ñuy ci loolu waaye daal ñu leen wax ne daal ñu ngi leen di a baax baax di leen bàyyee yàlla nga xam ne ku ko liggéeyal rek incha allah la fayee kontaan nañu trop gis nga man mi amuma tànk dama doon doote fii mot na ñaari kilomètre ma daan ñëw damay ñàkk ba tooy moo tax ko buñ ko waxee nii tey dama ne kii nañ daw li ngeen def na xeeb nañ ko ñu ngi leen di gërëm bi leen sant yàlla ngeen koy def ay at at at at li ngeen def sax xamul xamul leen ko lu mu day kontaan nañ ci yéen bu baax a baax baax a baax macha allah. bésu tey bi bésu mbégte la bésu baneex la. ndax lo xamne ay ati at dañ ko doon wut te amuñu ko won bu yalla defé tay ngeen indi ko amuñu dul lu rek sante len gërëm len di len ñaanal yalla yalla na len yalla fay te nga xamne tamit ah jubluul dara ci ndax di maye dund ndax ndox moy dund koku ak fu mu dekk ak fu mu mën a ñu ngi koy ñaanal yalla yalla nako yalla gëna yokal tiyaba yokal ko xewal ak wasek may ko guddu fan kontan nañ bu baaxa baax ndax forage na fi waaye forage bi ndox bi kenn mënu ko naan yenn saa yi bu paane fii la ñuy takk ay charrette dem ay kilomètres di ñaan ndox benn teen lañ fi amoon muy nekk ci biir kër ñu sonal loon borom kër ga lool ñoom tamit ñu nekk ay gor yu koo xam ne kenn xamul kenn amul seen fay kon bu yàlla defee lii ñëw ñu bokk kon ñun ñëpp ñu ngi leen di gërëm yal na leen yàlla fay yal na leen yàlla delloo ak jàmm. ndax kii lu mu wax lu mu wax nii dëgg la. ndax fee la doon reetoo foofu ñuy wax saane. foofu la doon rootee mu toog a toog ba te nekk nii. waaye waa jële yal na leen yàlla may jàmm ak salaam. ak weer ak werle waaye waaye lu ngeen bëgg ci àdduna yal leen ko yàlla may ci jàmm. jërë ngeen ndox ku ko may ci dëkk. Ah. loo ñaanati xanaa nga xam ne dem nga àjjana ba pare ndox kay ku ko may ci dëkk kay dem nga àjjana ba pare ndax loolu rek mooy dëkk ndox rek mooy dëkk waa jigéen bi mayee teen bii nag xeexee bu soobee yàlla dina mu dafa war a ñëw ba ñëw ba fii sax dafa war a ñëw fii ñu gis ko ndax lii lii lii wax nañu waaye dañoo war a fecc buñ ba mu xam ne suñu xol yi sedd na waaw jërë ngeen jëf Cheikh Sarr alhamdulilah rabbil alamin nous sommes aujourd'hui au village de Diouroup dans la région de Faye pratique, Inch'Allah, pour procéder euh, au lancement du puits que vous avez voulu offrir à ce village. Alhamdulillah, vous avez perpétué cette tradition qui est de donner de l'eau à des gens qui en ont besoin. Donc, qui peut être une sadaqatul jariya. Donc, ça veut dire que, Inch'Allah, nous espérons que cette œuvre-là va durer le plus longtemps possible pour que Allah subhanahu wa ta'ala vous inscrive des hasanats dans votre balance yawm al-qiyamah. Donc, alhamdulillah, vous avez enlevé une épine au pied à ces villageois. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala vous qui avez aidé ces villageois, qu'Allah vous protège ainsi que votre famille. Donc ça c'est la première étape, Inch'Allah, pour juste montrer l'état d'avancement des travaux. Aujourd'hui, on a touché de l'eau. Alhamdulillah, euh, les travaux avancent bien. Il reste la finition. Donc rendez-vous prochainement, Inch'Allah, pour l'inauguration officielle de ce puits. Nous disons euh, à bientôt. Wa wa wa loolu ñu ndox ak nii moom. da cee am solo man bi laa doon kii waaye wér koor gi paase nii nii. jërëjëf waay jërëjëf waay.